في السنغال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا mbokk yi man imam Adama Seck maa dellu di leen nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di jaarale nuyoo gi ci loxo Oreilles du Monde TV di ko ñaan mu jàttaleel ba ko bépp sénégalais fu mu mënti toll ci dëkk bi ci bitim réew di mag di ndaw di góor ci jigéen ma di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu te di leen fàttali ngeen di eh, aimé fa tabarakallah suñu ay vidéo eh, mbokk yi nuyoo gi ñu ngi koy jiital di ci jiital le président de la république ak son premier ministre ak képp ko koy jàppale tey waxtaan wi dimbal la buñu leen bëgg dimbale ñom ñoñu ndax justice dafa passé am importance ci développement dëkk ba tax borom xam-xam bu ñu tuddee Ibnu Taymiya dafay wax ni inna allaha la yuqimu ad dawlata al adila wa in kanat kafirah موهات مني إن الله لا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة من يالا دينا دينا تخوال دك لتخ نحترك دنيو ماندي دون تأي يفر موهات مني يالا دينا ديترال دك بو خمنا دنيا توان دون تأي يولد لن لتخ دخ جيستيس دفا دي لو خمني c'est naturel ci atam aadama shay'un fitri dom atam bi ko judduwaale moo motax ku ko def te te texe ku ko deful doo texe ba tey jamono jii dañu dëkkmal luñu ñu ay assises de la justice ñu bëgg a joyanti justice comme ni ko président bi di waxee djubanti justice bi la ñu bëgg a lii di ma fàttali benn sëriñ bu amoon ay taalibe ay ndongo di leen jàngal ba jëmi jamono mu jël benn ci taalibe yooyu te di ko duma duma yu metti ba noppi bàyyi ko waxu ko dara taalibe bi dem ba jëmi jamono taalibe booba mu dooroon

Yalla, daf ma xameloon fan nga jëm ndax xel bi la maham may yalla natt ma xam di yàlla dina la jox seen poste responsabilité ma bëgg nag tooñ la bi nga xam mettit bi nekk ci tooñeel ndax doo ko def kenn may wax dafa ni lii anime, animé président Diomaye ak son premier ministre ku nekk xam na fan la ñu ci bu ci tooñeel bu ñu génnee nag xam bi ñu xam tooñeel moo tax waruñu bëgg tooñeel dal kenn ci dëkk bi ñu bëgg a tooñeel daggal loolu li mu und mooy solution en profondeur la bëgg ñu bëgg solution bu xóot bëgguñu ñab ñabal Sénégal lii moo tax mbokk yi nag man may wax ku ma dégg may wax xamal ne fii laay waxee président bi ak son premier ministre waruñoo ñëpp ñëbal Sénégal waruñoo am dara lu ñuy ragal surtout population bi 54 pour cent des sénégalais ñoo leen wax yéen la ñuy jox suñu bopp. bon nag amatuñu lu ñuy dellu gannaaw amatuñu lu ñuy ragal nu ñu ñëw def li yàlla bëgg ci ñoom wante nag mbokk yi gis nga def li yàlla bëgg ci yow nit ñu bare dañ koy ragal. te xamuñu ne mooy seen moo leen mooy seen sauvetage loolu moo tax mbokk yi dama ne bu ñu bëggee régler problème justice bi la première chose bi ñu war a def mooy dañu war a poser un diagnostic ndax defar justice lépp lu yàqu ci àdduna bi boo ko bëggee defar yaa ngi ko war a commencer par un diagnostic diagnostic mooy lan mooy lan moo nekk ca cosaanu problème ba lan moo nekk sa suufa suuf a suuf problème ba képp kuy régler problème foog nga def loolu ba noppi man nag li ma jaaxal ci senegal mooy masumaa dégg kenn ci senegal muy jéem a diagnostiquer di wax ne justice bi lii moo tax baaxul ku ci nekk day ñëw taxaw indi sa problème yi dul jeex la justice est malade la justice nangam magistrat yi barewuñu nangam indi sa ay conséquences yu dul jeex du xaaj te fekk conséquence kenn du ko régler li ñuy régler mooy cause mooy problème lan moo indi mbir mi loolu la ñuy régler dama ciy def misaal nit ki boo amee feebar bu ñu tuddee par exemple rek Ebola feebar boobu day tax nit ki dina saxaat biram dina metti biram dina daw dina am hémorragie dina lu feebar yu ay yëf yu bare bare day génn ci moom wante loolu du ñu ay feebar loolu symptômes yi feebar bi lañ dañ lay jox di la xamal ban façon feebar la naka noonu justice noonu la mel problème yi ñuy gis fii yëpp du justice Sénégal du justice bi du justice bi de dañu war a poser un diagnostic moo tax diagnostic bi man ma poser ko depuis lors bu yàgg yàgg dama wax ne Sénégal crise constitutionnelle la am constitution bi moo am problème mais Sénégal yi bëgg ñoo dëglu ndax ku ci nekk yaa ngi yàkkamti yàkkamti am xaalis te fekk loolu baaxul moo tax waaye ji dafay wax ni ñi pauvre ñi pauvre tey rek la ñuy xalaat wante ñi riche ëllëg la ñuy xalaat lu ñu benn ah ñun ni ñuy dunde nii baaxul lu ko waral mooy danoo yàkkamtee am alal te alors que yàkkamtee am alal def yoonu yàlla mooy indi alal justice mooy la colonne vertébrale de la démocratie la démocratie la colonne vertébrale du développement nit ki foog nga teylu ndànk-ndànk ba tax na mbokk yi ku ma lan mooy diagnostiku Sénégal dama wax ne la Sénégal dafa am crise constitutionnelle yi ñu fiy wax yëpp code la famille nangam nangam yooyu yëpp du ngi feebaru Sénégal Sénégal mu ngi nekk problème am mu ngi nekk ci crise bi mu ngi nekk ci constitution bi naka la nekk ci constitution bi ci lu gàtt rek mbokk yi xoolal dëkki jullit yi partout dans le monde dëkki jullit yi ñoo gën a des gannaaw pour nga xam ne mboon danga naan yenn saa yi boo xamulee nga ne islam dafa am problème fekk islam amul problème musulman yi ñoo am problème musulman yi nag dañu nekkoon ñaari kuréel kuréel boo xam ne pays anglophone moo la colonisé ak pays boo xam ne pays francophone moo la colonisé boo leen seetloo bu baax da ngay gis ni les pays anglophones ñoo gën a am liberté que pays francophone yi lu tax ndaxte pays francophone yi ba ñu la joxee seen indépendance joxuñu la indépendance dañuy jël ñoo xam ne ñoom la ñu formé ba ñu mel ni moom xam ne bokkuñu der der rek la bokkul mais ñoo bokk lépp lu nekk ci biir ñooñu la ñuy jël ne leen yéen yéenay gouverner dëkk yi ñooy ñooy gouverner Sénégal Guinée Mali Mauritanie Burkina Faso ñoom ñëpp benn yoon bi lañu bokk France formé na ay nitam ne leen yéen a ma fiy toogal ñooñu toog fi ba mu yàgg ñu tàmm affaire bi.

les normes juridiques émanent des normes sociales loolu la ñuy wax de loolu mooy lan li mu tekki du du peuple bi ñooy toog defar seeni loi déedéet li mu doon mooy peuple bi loi yi ñu leen di jox na nuroo ak seen ngëm-ngëm na bàyyi ko ci seen ngëm-ngëm ndax doomu aadama lépp lu muy def da koy da koy da koy gëm ba noppi liy tax sax loi du baax mooy xamuma ko bëgguma ko gëmuma ko loi boo ko xamule doko mana def danga koy violer boko ko doko top ko topp naka noonu loolu moo tax Sénégal suñu justice am problème ndax justice bi ngeen di jox dëkku fi code napoléonique la code napoléonique mo indi la 5e république de Charles de Gaulle li bo fi nek mbokk motax moo fokk nu comprendre que ne yalla subhanahu wa taala jërul ab loi bu ko neexee rek nañu xëpp ko xëppañu ko nañu def leen li ma leen wax déedéet yàlla dafa xool doomu aadama lan la bëgg doomu aadama bu ñu nekkoon ci match de football mais dinañu soxla ab arbitre ndax bu ñu xëccoo ñoom ñaar ku ku nekk ràcc mu xëpp mu jëm sa sa sa boor day dóor moo tax yàlla xam ne loolu mooy indi ay ay ay ay safaan ak i jàmmaarloo mu ne ngoon maa leen di atte loolu mooy loi bi ñu yàlla defal ñun ñoo soxla yàlla tegal ñu ko li nu bëgg la ñu yàlla defal ndax doomu aadama mënu teg loi ndax doomu aadama mënu parti lii moo tax yàlla subhanahu te ci ak mbaaxam ak yërmandeem mu ne doomu aadama yi du ñu ndax li nu bëgg loi bi peg, bëgg justice bi nu bëgg yàlla moom la ñu jox loolu mooy charia moo la ultime piste de sortie de la crise constitutionnelle ñu bari yaakaar ne ni justice dafa am problème non constitution bi moo am problème boo leen ma laajee nag fan la problème bi nekk ci constitution bi mën na la mu ngi nekk ci premier article de la constitution mooy laïcité laïcité boobu moom la Sénégal yi déggul lu tax ndax ñi leen ko doon jàngal laïcité à la française lañ leen doon jox te wax dafa jooy ñu ne ko loo jooy mu ni ndax dañ ma wax fuñ ma war wax dañ ma wax te jotaguma ki may wax waruma wax dama koy bilahi billahi sengor manul wona jangal sénégalais yi lan modi laïcité abdou diouf naka nonu abdoulaye wad naka nonu macky sall naka nonu man ñu la koy jangal ndax bokku ñu ak ñom diiné lolu motax bañu jégué laïcité à la française lolu mo sopp suñu diiné batay tax tay ñun ñu ay tubab loi bii tey kenn bëggu kaa soppi nañ ko bëgg a bàyyi ba noppi nag di wax naan dañu bëgg a souveraineté dañu bëgg cohésion nationale dañu bëgg indépendance de la justice yàlla xam na ne doomu aadama mooy defar justice doomu aadama mooy développer ab dëkk doomu aadama boobu bu fekk dafa yàqu ndax joxoo ko diine li muy def gëmu ko xamu ko loi bi ñaata nit ñoo xam ci Sénégal ñaata nit ñooy acteurs yi droit ci Sénégal acteurs yi acteurs yi droit ci Sénégal ñaata lañu acteurs yi justice ñaata lañu ci Sénégal ah lu tuuti lañu ci Sénégal ah buñ ko doon comparé ak marabu yi ak ustaas yi ak imam yi duñu duñu duñu duñ leen doy gala gala galaxndiko lu tuuti la ñuy doon tey ñu jël justice tubaab bi loolu moo tax tey ñu tubaab bi formé barewuñu mais buñ ko defoon tey ci tey justice su islam imaam yeeg ustaas yi tey nga xam ne tey am nañu justice bu mat sëkk li li mu war mais complexe d'infériorité moo tax tey bëgguñoo nangu suñu diine charia bi ñu yàlla jox dañ ko weddi ndax xamuñu ne justice diine la justice bu nekkul woon diine yàlla du wax ne waman lam yaxkum bi ma anzala fa kafirun kaafiruun ku attewul ci atteb yàlla yéefar nga saay-saay nga tooñkat nga bu yàlla waxee daf ñu bëgg xamal ne justice boobu nga xam ne moom la bëgg ñu atte que selon alquran justice boobu ci diina la bokk ndax bu bekkul woon ci diina du yóbbu kenn safar ne kooku du du du ko joué comme jéem yëfar ah mais malheureusement ñi nga xamante ne tey ñooy ñoo ŋànk justice bi mais jànguñu alxuraan jàng jànguñu diine jànguñu diine mën di ni imam yi ak ustaas yi loolu moo lo loo jàngul doo ko tari moo tax ñu bañ sharia te sharia képp koo ko bañ parce que nekkatuloo jullit ah bu ñu defoon tey référendum sharia wala wala loi de de code napoléonique normalement loolu la ñu waroon a def bu ñu defoon loolu dinañu xam sénégalais yi lan la ñu bëgg ndax loi mooy mooy mooy defar dëkk mais ban loi ngay wax ban loi moom loo jël loi boo xam ne boo ko jëlee ab yéefar ngay doon ba noppi nga bëgg kaa defar ba alors qu'on ne peut pas faire du vrai avec du faux ñun dañu am problème yu rëy rëy rëy rëy complexe d'infériorité veut a dund colonisation ba noppi régler ses problèmes alors on ne peut pas conquérir le monde à travers une prison ah hein? veut loo lekk façon comme ça là lu ñaaw a ngi nii mbokk yi moo tax mbokk yi dama leen di wax affaire bi fan la jógee en 1972 Abdou Diouf ba il indi son programme son projet de la francophonie keroog la ñëw dindi les tribunaux musulmans ak charia kenn ko dindi ci Sénégal Abdou Diouf loolu mu def marabu yi taxaw nañ ci conseil supérieur des affaires religieuses ñu taxaw ci bay ci seen waar bu bu mat sëkk sëriñ sëpp ñoo taxaw kër diiné yépp ñoo taxaw dal dal Abdou Diouf li la bëgg code la famille buy dox ci suñu diine ndax ci lañu tuddu ci lañuy dundé té ci la ñu ñuy jébbal suñu borom Abdou Diouf mo bañ comme le sénégal bañe woon constitution Sénégal bu ñu amee indépendance ndax tuba bi mo leen formé ba noppé nak toujours di ñu wéyale ci yoonu tuba bi loolu moy nekkoon problème bi Abdou Diouf momu ban argument la amoon moy laïcité. mooy problème bi ci Sénégal moo tax mënuñoo dox ci yoon woowu ndax lan lu tax indi laïcité bi mu ne ndax Sénégal dañu am 20 pour cent de chrétiens waxul sax kii 5 de wala 15 20 pour cent de chrétiens moom la wax fan la Sénégal ma si am 20 pour cent de chrétiens xeexuma chrétiens yi mukk ci àddina ndax problème mu musulman yi mooy problème mu chrétien boo bàyyee musulman yi ñu souffrir chrétiens yi dañuy souffrir ndax ñoo bokk benn diine ku leen wutal ñaari diine yaa benn diine nag bu amee ci la ñuy pratiquer laïcité fu ñu mës a pratiquer laïcité ci benn diine lañ ko pratiquer loolu mooy tax mu mën a am njëriñ mais képp ku ko pratiquer ci diggante ñaari diine rek échec nga loolu mooy le problème laïcité mënul am fu charia amul charia mënul am fu laïcité amul laïcité kën mënu ko appliquer ci ñaari diine ci benn diine rek dañ ko mën a pratiquer lii may wax nii mbokk yi. justice yëfu diine la yow yaay xool ban diine mooy sa diine nga xam lan mooy sa justice Sénégal bu fekkee ay musulman lañu te laïcité terewul diine laïcité mënul effacer diine ndax laïcité du diine laïcité benn technique rek la benn procédure rek la benn muy instrument de gestion de la diversité que ça soit ci diine bu ñu mënti doon ci àddina lañ ko fay appliquer. Hein? lolu la doon ñun ñu ne laïcité moo ñu teree appliquer charia te c'est pas vrai moo tax ma ni mbokk yi bu fekkee ne Sénégal musulman moo fi nekk ak chrétien ku ci nekk bu amee loi nga doxal ko ci loi am loolu justice nangu ko ndax loolu day nekk pluralité institutionnelle ndax bu kii amee institution ki am institution am ñaar ñoo bu ñu amee problème ban institution moo leen di atte impossibilité boobu loolu moo tax ñoom ñaar ñëpp la loi rek mo leen mën gouverner te loi bop moy nek loi ru la majorité motax ci laïcité loi majorité bi da ciy feeñ diine majorité bi da ciy feeñ mom ngay jël dichotomiser ko nga xar ko ñaar boko xaré ñaar li ñu bokk ko ñom ñaar li ku ci nek def ci lu neex lool moy tax ñu yeb motax ñu ne laïcité c'est l'égalité des confessions ñun nak ñu ne mooy diine amul ñu bàyyi suñu diine ba bu ñu bëggee def justice ñuy seeti justice feneen te fekk ñun ñoo ngi ci am lu na gàññi soxmat yàpp na ndox ba mu dëkkal mooy yaa ngi am ndox ba mu benn gàññi nga dem di ko seeti feneen kal insi fil bayda yaxtulaha damau wal maau fawqa zuhuriha mahmulu lii moo ñu dal moo li may ñaan mbokk yi mooy ñu xoolaat suñu bopp bu ñu bëggee dimbale président président jomaay ak soo premier ministre nañ ñun ñu respecté constitution Sénégal Sénégal est laïque démocratique sociale laïque il faut imposer Sénégalais Nous ñu appliquer charia loi la ñu comme nico gagne, la justice est rendue au nom du peuple les sociétés secrètes leur loi naka les normes juridiques et des normes sociales Sénégalais c'est un diine qui leen di àtte nous mooy mën Nous tax ñu cohésion nationale Nous lañ ko nous ñu ko defulee nag kenn du wóolu sa moroom rupture de confiance boobu moo tax ku ci nekk day nekk dans une dynamique de soof qui peut naka laay fexe ba génn ci loolu mooy indi tey loi boo xam ne kenn du ko respecté africain yi li moo tax respecté wuñu loi ma di leen xamal ne mbokk yi laïcité li muy permettre day permettre nit ñu lu ñuy bokk. lu ñu bokk loolu nag mooy yàlla lu ñu bokk loolu mooy charia bu ñu bëggee yàlla du ñuy bëgg suñu dëkk xubbul watan mi noon mi nal iman comme nañ ko doon faral di waxee bu ñu bëggee suñu dëkk keroog nag loolu mooy mën a tax ñëpp a dimbalante ngir Sénégal dem kanam kenn du ñu mën a trahir kenn du ñu mën a rax suñuy projet de développement dañuy dem réussir ñu dimbale suñu président dimbale suñu premier ministre ndax Sénégal dem dem ci kanam ñu bàyyi xuloo bi ak ŋaayoo bi moo tax li may ñaan le président Diomaye li ma koy ñaan mooy laïcité terewul diiné bon président Diomaye li lay ñaan ngir yalla moy defal un référendum sur diiné Sénégal pour loi Sénégal ban loi la ñuy jël ndax loi charia la ñuy jël wala ndax code napoléonique la ñuy jël bu défé ni Sénégalais yi dinañu atté sen bop ndax loi système la lo jël fi jaxase fi jaxase fi lolu yalla nangu ko ma ngi ñaan yal ñu yalla defal tawfiq dañu tegaat suñu bopp ci yoonu yàlla ndax li yonent bi di wax ni ahabul xalqi ilallah imaamun adil ki yàlla gën a bëgg ci àddina mooy président bu mandu li muy xamle leen mooy rôle président mooy mu nekk koo xam ne day mandu day appliquer justice ban justice justice yàlla moo tax mu waxat mu ne sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yowma la zilla illa zillu mu ne juróom-ñaari nit yowmal xiyaam xam ne day tàng day metti taxawaay booba xam ne ku ci nekk say ñaqa say bàkkaar yépp ñoo lay ñoo lay mëdde ne bésu keroog ki yàlla di njëkk dugal ci suufu suufu arash ngir keral ko mooy président bu maan su suñu président yàlla na ko yàlla def ci ñun waaw bu ko defee dina respecter suñu constitution bu ko defulee dina violer suñu constitution te bu boobaa nag bés bu violer constitution bi peuple bi du ñu ko bëgg bu ñu ko bëggulee dina dina dinañu dal ci kaw te loolu yàlla yàlla boo ko yàlla def di leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu àq di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.